alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursaliin wa ala aalihi wa saxbihi ajma'iin yaa ayyuhal laziina aamanuu ittaqu llaaha wa quuluu qawlan sadiidan yuslih lakum a'maalakum wa yaghfir lakum zunuubakum wa man yuti'i llaaha wa rasuulahu faqad faaza fawzan 'aziimaa. Ay yéen mbokk jullit yu tedd yi gannaaw ba ñu santee sunu boroom julli ca yonentam ba ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ca di dëggu ci seeni wax képp koo xam ne bëgg na texe àdduna ak alaxira day xam ne yoon ba mooy mu nangoo topp yàlla topp ndigali ay yonentam gannaaw loolu fokk ab julit day xam différence bi rëy diggante diine yàlla ak luwaa yi nga xam ne doomu aadama yi ñoo koy xalaat ci seeni xel doomu aadama du xalaatal lu dul jamonoom doomu aadama du xalaatal lu dul place ba mu nekk amma diine yàlla gi yàlla mi nga xam ne moo bind lépp yàlla mi xam fépp yàlla mi xam jamono yépp moom mooy kaka wàcce looloo tax diine la boo xamee ni nii nam valable woon ca jamono yonente ba sallallahu alayhi wa sallam lay valable ba ila yawmiddin amul benn coppite boo xam ne dana cay am sunu borom mu ne ndax ki bind mënul xam la mu bind lu mu doon ca mooy sunu borom diine jooju yàlla moo ko mataloon daa ne bis ne ki tey matal naa seen diine mottali samay xéewal ci yéen gërëm lislaam mu nekk seen diine li dagan mooy li lislaam daganal li xaraam mooy li lislaam xaraamal ngal la waay mbokk nañu bàyyi xel ci loolu bàyyi leen xel xam ni yàlla ba muy wàcc diineem ji amul lum ci jaglee loon l'islam de France amul lum ci jaglee loon l'islam pour Sénégal amul lum jaglee loon l'islam pour Makka wala l'islam pour Washington bal l'islam dafa wàccoon sunu borom mu ne wa inna haadihi ummatukum ummatan waxida wa ana rabbukum faabudun seen xeeta ngi nii yéen ñëpp benn xeet la man may seen benn boroom na ngeen ma jaamu loolu dafay valable ci lépp lu aju ci lislaam amaa bu dee sunu jamono yi tey jii bokk na coow bu boo xam ne mbokk jëm na ci wàllu muuraay ngalawaay na ngeen xam ne muuraay googu moog julli ak koor ñoo bawoo fa mu jóge ñi ngi bawoo ci alquran ak sunna te digle woon ñu julli digle ñu woor kooku moo digle nañu muuru sunu boroom yàlla leeral ko ci ab téeréem yeneen ci yàlla bi leeral ko ci sunnaam donte ne ña nga xam ne occident togg na seenum xel am na juyoo yu bari yuñ ci juyoo am na ñu jàpp ne waaw xijaab day mooy muuraay gi aada la woon ca aada yi jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bu ñu ko kenn imposé ci jamono yi vingtième siècle bi ñuy dund am ñeneen ñu ne de xijaab boobu de prison la buñ tëj jigéen ñi jigéen ñi pour ñu mën a jouer seen rôle ci société bi fokk ñu sànni seen muraay yooyu sànni lépp lu leen di teqale ak góor ña mbokk ñi ñëpp ñooy ña nga xam ne ñoo dëppoo ci ak réer gannaaw bañ toppee seen bànneexu bakkan ngal na waay mbokk xam leen ne gannaaw bi alquran ak sunna addoo ci muuraay googu mboolem boroom xam-xam yu ñuy tudd na doon ña démb na doon ña tey ñoom ñépp dëppoo nañ ci ne muuraay googu dafa war loolee ñu bàyyi ci xel bu baax na doon sëriñ si nekkoon suñu réew mi wala na doon ñu nekkoon keneen ak keneen ak keneen ñoom ñépp dëppoo nañ ci ne loolee mbokk lu war la su ko defee ngalawaay ñu góorgóorluwaat xam ne muuraay googu même bu dul woon lislaam doo ko santaane même bu doon rotul ci sunna sax képp koo xam ne am na xel mu rafet doon na nangu ne yàlla bind jigéen muy attiré góor su ko defee kooku doon koo xam ne nii kuy muur awraam la ni nga xamee ni ni noonu lu jigéen sensible ba ku ko gis ci góor bëgg a am ci moom pexe loolu waroon na doy rek ci nekk muuraay loolu tax benn professeur bu jigéen mi ngi ñëw di jàngal ay élève indi ñaari gâteau benn gâteau bi ñu emblé ko beneen gàtt ba ñu dind ko mu téye ko ci loxoom daa di ne élèves yi ñaar yi ban moo leen ci gënal ñoom ñépp ñu ne bi ñu embalé moo leen gënal mu ne nag naka noonu yéen jigéen dañu leen war a sàkku si dañ leen war a takk jigéen bi ñu embale ay mu muuru muuraay goo xam ne jëkkër ba koy nar a takk ëllëg xelam day dal ci ne kii de bu ma ko takkee du ma ko bokk ak kenn ku mel noonu abadan du yem ak jigéen ba nga xam ne daa futteeku loolee même boo ko takkee it sa xel du dal abadan ci moom kon loolu même bu ko lislaam diglewul woon xel mu rafet mën koo digle waaye fa lillahi alhamdu ko julit mbooleem diine yu jëkk ya dañoo digle muuraay laajal xale yi nga xam ne ñu dem Amérique wala feneen ñu gis li ñuy tuddee les juifs orthodoxes mooy yahud yi nga xam ne ñu ngi jéem góor góorgóorlu di jéem a téere Muusa ba doonte ne ne jàdd nañ ko waaye teewul ñoom ñépp seeni jigéen dañuy muuru xoolal li nga xam ne mooy chrétien yi demel ci le nouveau testament nga xool l'évangile selon Paul da fekk ne Paul di nettali ci loo xam ne seen diine la mu ne la femme que la femme qui ne porte pas le voile soit tondue bépp jigéen bu ñu dajeel ci mbedd mi muurul la nga xam ne moom mooy boppam boobee dañ koo war a wat nel loolee mbokk ca lu jëkk jële woon am naa ñun diine lislaam sunu borom yàlla subhanahu wa taala moo ne ay yéen góor ñi na ngeen sajji seeni bët bu leen di nekk di xool jigéeni jàmbur yi ci bànneex ay yéen jigéen ñi sabdi leen seeni bët bu leen nekk di xóor góoru jàmbur yi ci bànneex waaye bu leen yem foofu ngal la waaye na ngeen di muur la nga xam ne mooy seen awra muur leen la nga xam ne mooy seen dënn ya seen baat ya bu leen te feeñal lu dul loo xam ne moo ca kawe ci loo xam ne yàlla lim ne benn liste boo xam ne ñoo ko war a gis muy sa doom wala sa jëkkër wala sa doomu jëkkër wala ñu demee noonu ba baa sunu borom yàlla di wax ne xataa la jigéen yi arab yi miinoon di takk ay lam ci seen tànk loolee bu leen dóor seeni tànk ngir ñu xam ne takk ngeen ay lam ca loolu lu muy waral mooy dañoo waroon a kon muur loolee nga xam ne fa takk tànk yooyee loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax suñu yaay Aïcha ne yàlla na yàlla yërëm jigéeni ansaar ak jigéenu jigéeni waa muhajirin bi aaya yi wàccee ñoom ñépp dañoo daw dugg seeni kër xotti seeni sërëg seeni mëlfa daal di koy jël daal di koy muuroo kon ngalla waay ku la ne muuraay aaday araab la day wax lu ko neex aaday arab moom mooy dañ daan jóg musóoru comme ni ñuy def langal dem seen yoon loo tax sunu borom ne ay yéen jógeen jullit ñi bu leen génn mukk ne jaahilu arab yi daan génne ay di ñàkk muur seen awra waaye kay muuraay ci alquran ak sunna la wàcc sunu borom yàlla dem na ca ba ne sax jigéen ñi nga xam ne dañoo dem ba màgget ñooñu day dara nekkul ci ñu dindi seen muuraay waaye nag nañu xam ne bu ñu muuru woon day mooy la gën loolee mbokk di ndigal boo xam ne nii sunu borom wax na ko muy général ci l'islam yëpp waaye yàlla doyloowul loolu bal dafa joxoñ sunu yonent muhammad alayhi salaam ne ko ay yow yonent bi waxal sa soxna yi waxal sa doom yu jigéen yi waxal mboolem jigéeni julit ñi nañuy muur seen awra loolu day mooy tax ba kenn du leen lor loolu mooy tax ba du loru loolu mbokk la yàlla wax mu wuteeg benn waay boo xam ne bew na ca mbooloo ma ko topp xamul lislaam lu dul ne mi ngi juddoo ci ci ci kër gu ñu wax këru diine mu ne noo la nga xam ne muy muuraay lañu xijaab la ci yàlla namm mooy personnalité bu jigéen di am ba kenn du ko yàpp waaye du question jël ay sératu musóor naan da ngay muuru malaj malaj déet jigéen mën ngaa sol lu la neex waaye nag sa xijaab sa barrage mooy nga am personnalité mbokk ko mel noonu duural na yàlla duural na yeneen ci yàlla ça veut dire que soxna yeneen bi amuñoon personnalité ba yàlla di leen wax muur leen seen awra doomu yeneen bi amu amuñoon personnalité ba tax yàlla di leen wax muural seen awra negam la tax jigéen di mën a mucc rek mooy mu am personnalité ci loolee mbokk da ngay gis ne ah ci bew ak réer mënta passé loolu sunu borom yàlla subhanahu wa taala ca la waxoon ne ay yéen góor ñi bu kenn ci yéen dugg ci biir néegu jigéen di ko laaj lu mu mën a doon bépp jigéen bu nekk ci biir néegam mi ngi la nga xam ne mooy sécurité am góoru jaambur amul droit tëb bett ko di fa dugg wala mu ñëw ci moom bal sunu boroom mu ne lu ngeen soxla taxaw leen ci bitti ngeen laaj ko ci gannaaw xijaab loolu mbokk moom la sunu borom wax ci ab téeréen ci aaya yu bari demel ci suratu nuur ci aaya 30 ba demel aaya 60 ba dellul suratu ahzab ci aaya 59 ba dellul aaya 53 ba waaye dellul ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam mu ni ñaari mbooloo ngi nii day dén nar a ñëw sama gannaaw ñoom ñépp sawara lañ jëm benn mbooloo ma mooy nit ñoo xam ne ñi ngeeg ay yar yu mel ne génn nag di ci duma doomu aadama yi loolee muy wane ne képp koy joxe ordre pour ñu duma ay nit wala yow mi nga xam ne yaay dem di duma ay nit nga la waaye ka ngay duma laajal sa bopp ndax kii yàlla digle ne ci ñu duma ko ab salaire wala ab place bu mu tax mukk ngay duma jaami yàlla yi ci yàlla santaanewul ñu duma leen am nañu yàlla santaane dañu duma leen képp koo xam ne mosoo sëy nga njaaloo ku mel noonu dañ laa war a duma képp koo xam ne yaa ngi jur ay fitna di lor doomu aadama yi ci seen diina ak di leen gaañ ku mel noonu yeeyo nga ñu duma la waaye ngal la waaye moyta leen képp koo xam ne yaa ngi takk der du duma doomu aadama del bàyyi sa xel ka ngay duma ana lu tax nga koy duma waaye ñaareelu mbooloo bi mooy kan yeneen ci bi alayhi salaam nee na ay jigéen lañu yoo xam ne waaye bu ñu génnee dañuy rafle loolu mbokk ñi ngi ciy dund lu sunu yi dundul woon dellul laaj ñi doon dund la crise de années trente da nga daan gis këru lëmm kër benn sër moo fay nekk ke bépp jigéen buy génn moom lay woddoo doog a dem waaye xoolal li ñu yàlla nattoo tey kër goo dem jigéen joo lamb mën na laa génneel téeméeri yére mën na laa génneel fukki paani yére yu fees dell loolee mbokk da ngay gis ne yàlla moo ñu ko nattoo waaye la ëpp ci jigéen ñi da ngay gis ne bu ñu génnee ña ngay génne seeni awra ci biti yonent bi alayhi salatu wasalaam nee nañu day du du ñu dugg aljanna bal xetu àjjana sax du leen xeeñ loolu mbokk gannaaw ba nga ko xamee yow jigéen bi bëgg a muuru wala yow wooy jur bi bëgg sa njaboot muuru xamal ni muuraay googu moog julli ñoo yem sunu borom nee na waylun lil musallin doomu aadama julli na ba pare yàlla rëbb ko ci julleem googee lu tax mooy def ko na ko yàlla bëggee muuraay mbokk yi dafa am ay shuruut yoo xam ne danga nga koo war a matal la ca jiitu mooy fexeel ba sa yaram bi yépp nga muur ko ba mu daj bañ caa génne dara loolu mooy lu ëpp ci li borom xam-xam yi wax amma beneen ñaareel bi mooy ñu fexe ba muuraay bi bu mu nekk taar boo xam ne foora mu mu attiri nit ñi ndax kat baleen lu attiré bëti nit ñi ci yow moo taxoon ñu ne la muurul loolu moo tax ngay gis sunu mbokk yi nekk ci golfe bi Arabie Saoudite ak feneen jigéen ñi ku ciy génn sol lu ñuul loole moo taxoon donte ne duñ ne jigéen daa war a sol lu ñuul wala lu xonq wala lu jaune waaye fexeel ba li ngay sol bu mu nekk taar boo xam ne nii dafay attiré doomu aadama yi doonte ne ñun jigéenu sénégalaise ni ñu yàlla subhanahu wa taala nattoo bala ñoo toilette rek dañuy génn buñ jógee ca fan demoon ca buntu kër gi la ñuy summikoo loolee mbokk dangay gis ne nekkul woon lu war am naa ñetteel bi war naa nekk lu yaatu wurul nekk lu xat mbokk jigéen du sol loo xam ne dafay melal ne nii la ay poojam mel nii la toogukaayam mel nii la ab dënnam toll ñu koy tudda mbarum fetal loolee mbokk da ngay gis ne muuraay boobu du muuraay bu baax doonte ne ne natt bi ñu yàlla nattu tey ci xale yi jigéen ñi mooy ci muraay bu bees bi dañuy sol lu ne dang ba mel ni ñu siddeeku ak dagg cokol daa di muur ca kaw ne loolu moom mooy moddu ibaadu nañ xam ne mbokk loolu baaxul jigéen la nga sol dafa war a yaatu ba ku la gis du xam sa dënn nu mu toll du xam sa biir nu mu toll du xam na ngay la ngay tooge nu mu toll loolee julit dafa war a bàyyi xel ci loolu waaye mu doon it lu fatt ba ne doon lu yaraax bépp yére boo xam ne boo ko solee romb nit ñi ñu xam ne kii kat daa xees wala kii daa ñuul na nga xam ne loolee mbokk baaxul waaye juróomeel bi nga góor góorgóorlu fexeel ba bu mu doon luy xeeñ par feu yeneen ci bi sallallahu ne bépp jigéen boo xam ne ma ngay génn parfum wu ba góor gu mu romb mu daal di xeeñ ca parfum ba ku mel noonu day ma ngay nekk ci ak façon njaaloo la nga xam ne mooy juróom-benneel bi fexeel ba bu mu nekk ca lu góor ca loolu lañu yàlla gën a nattootee ci ibaadu yu bees yi mooy sol sa jiin bu dang sol sa buddi bu dang ba pare daal di wëlbati ku jël daggati kool teg sa kaw mbokk déedéet xam leen ni seen doom yu góor yi bu ñu bëggoon génn sol benn jupe waa kër gépp dañ ciy jàpp naka noonu xale bu jigéen bi sol pantalon bu dang ay waay waa kër gi yépp nañ ci jàpp te xam ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na yal na yàlla rëbb góor guy sol col ga jigéen ñiy sol yal na yàlla rëbb jigéen bay sol col ga góor ñiy sol yonent bi alayhi salaam dem sax ba ne ah, bokkul ci ñun bokkul ci ñun bépp góor boo xam ne day génn col la góor ña di sol la jigéen ñay solo wala bépp jigéen boo xam ne day génn sol la góor ñi di solo loolee di mbir boo xam ne waaye nañ ci bàyyi xel bu baax rawatine la ñuy tudde les ibaadu moderne amaa ñi nga xam ne wu ñu moom loolu taxul may wax la nga xam ne moo feeñ suñu mbedd yi tey aka neexul sax ñuy sol ay pantalon waaye la ngay gis bis jigéen ngi la romb xale yu jigéen yi la ëpp ci ñoom ay fiso la ñuy sol loo xamee ni tubaab yu baax yi sax ñemewuñ koo génne ca seen dëkk ya loolee ngiree lan mooy lay firi juróom-ñaareelu charte ba mu bañ a nekk colug yéeféer ca mbokk tey ji dangay gis sunu xale yu jigéen yi ana ci kan lañu roy ak col ndax seen yaay yi ndax seen maam yi déedéet ñoo ngi ko royee ca série ya nga xam ne mooy am ca télévision ya ba bàyyi demee jënd télévision ñëw tegal leen ña gën a bon ci réew mi guddeeg bëccëg ñu leen di won nii ngeen war a solo nii ngeen war a doxale loolee am ca télévision bi mooy feeñ ci mbeddi ndakaaru yi feeñ ci mbeddi mboole mi ville Sénégal yi loole ci mbir boo xam ne nii mbir bu tiitlu la donte ne sénégalais ku mën a roy la sénégalais ku mën a soppeeku la loole lañuy ñuy gis juróom-ñaari charte yoo xam ne ngalawaay war nañu góor góorgóorlu suñu jigéen ñi delluwaat ci ca am ngërëmal seen borom ci loolu waaye mbokk bu loolu yépp wéyee am na benn fitna boo xam ne mi ngi jóg jamono yi tey ñu bañ julit ñi dugg ci ndax dugg ca mën na laa yóbbu ci merum yàlla suñu jigéen ñu baax ñii di muuru jaaraama ñoom yal na yàlla dëgëral leen waaye mu am ca ñu gën a matale dem bay muur seen kanam tey jii diabolise nañu leen ñaawal nañu leen tiital nañu nit ñi ci société bi ci ñoom ngiree ne jàpp kat ñoom ñi am na ñuy taal ay bomb ca je ne sais où ca dañuy utiliser ñu mel noonu kon ñu mel nii nañu fexe ba ñu génn suñu réew mbokk loolu xeex ko xeex l'islam la ngelaw ay xam leen ni diine kenn du ko jële ci ay passion kenn du ko jële ci ay mbedd diine ñoo ngi koy jële ci borom xam-xam yi nga xam ne xam nañu diine xam leen ne mbokk mboolem yi borom yi xam-xamu diine dëppoo nañ ca jamonoy démb ba jamonoy tey ci ne muur la nga xam na mooy sa kanam day loolu mooy la gën a mat ci muuraayu jigéen fan la wuute bi am mooy ndax farata am du farata ba nu wuutoo ci ne farata la am du farata ñoom ñëpp commencé ci li ñuy tuddee mazahibul arbaa abu hanifa malik shafihi ahmad ñoom ñëpp dëppoo nañ ne bu fitna amee day jamonoy fitna jigéen dafa war a muur awraam amma boo tànnee imam Shafii ak imam ibnu Hambal ñoom dañ ne fitna ak bi fitna yépp a ci bokk yem jigéen dafa war a muur kanamam fu mën a toll lii mbokk moom la borom xam-xam yi wax donte ne li ñuy wax naka jekk tubaab yi ñoo naan dans les pays des aveugles la borgne et roi bu ñu demee ci dëkk boo xam ne ñépp dañoo gumba ku fa patt daañ la fal kon suñu jigéen ñi di muuru bay bàyyi seen kanam alhamdulillah ndax am na borom xam-xam yi ne loolu mën naa nekk kon alhamdulillah waaye mbokk la ña ca yegg nag bay muur seen kanam nañu xam na ñoom ñoo gëna gën matale ñoo gën a dëppoo ngërëmal yàlla yow boo ca bokkul bokkal ca ña di ñaanal waaye abadan bul bokk ci ñi di critiqué mu des beneen mbir ñu ne ah ñooñu mën nañoo indi ay fitna ndax bu ñu muuroo kenn du leen gis mbokk bu dee looloo mën nañu wax ni bu kenn gàddoo ci saat ci biir ndakaaru ndax saag bi bomb mën na ci nekk bu kenn gardooti valise biir aéroport ndax bomb mën na caa nekk mën nañu wax voiture teintée yi nga xam ne ku dugg ci biir kenn du la gis kon nañu arrêté toutes les voitures teintées ndax ka nekk ci biir duñ ko mën a gis su ko defee waaye ñi ngi woo képp koo xam ne yaa ngi wax ci loolu xam ne loolu depuis jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom lañ doon jëfee diine jógewul Amérique diine jógewul France diine ngi jóge Makka ak Madina même boo demul Makka ak Madina ci yor télévision xam nga ne mboolem seeni jigéen dañuy muur seeni kanam loolee kon jaamu yàlla la goo xam ne ba muy am état Sénégal yi amul loolu moo tax ba ministre ak président gouverneur ak kum mën a doon ngal la way loo yàlla boobu bu dara tax nga naan da koy interdire ay jaamu yàlla ñu jafe ko ñooñu nga xam ne am na ci ñoo xam ne seeni maam ak seeni maam ñoo ko doon jëfe waaye ñaareel bi mooy kum ma a doon koy wax ci mbir boobu ey way xale bu jigéen bi bu amee droit sol kilotam ay poojam na bàcc ci biti mu am droit génne génn wàllu weenam ci biti génne yaramam yépp ci biti o waaye beneen xale bu jigéen am na droit ne man damay muur sama kanam xanaa nekkuñu ci dëkk boo xam ne dañ ne démocratie la doomu aadama bi am na droit def ay ay droit am tant que duggul ci droit keneen su ko defee ndax deux poids deux mesures yooyu war nañ ko def ngalla waay nañu bàyyi war xel xam ne lii nga xam ne mooy problème mu terrorisme ñun ñëpp ñi nga ñaan yàlla niñ koy dégg ci yeneen réew yàlla bu mu yegsi suñu réew yàlla na yàlla wàcce fi jàmm wàcce fi aafiya waaye nag loolu bu mu tax mukk ñu wëlbatiku nag di dem a jalgati la nga xamee ne mooy sunu loi yu jóge suñu borom ci li ñuy ragal bis bu ñu demee ba réussir ci muur kanam daañu mas a dem ba ne même yéen ñu muurul seen kanam sax dindi leen seen muraay yi comme ñu ko commencé tere ci yenn écoles yi comme nañ koy teree fële ci yenn yenn dëkk yi su ko defee nañu bàyyiwaat xel soo demee kanadaa jigéen ñaa ngi muur seen kanam soo demee Amérique jigéen ñaa ngi mur seen kanam soo demee de Angleterre jigéen ñaa ngi muur seen kanam loolu kon ngal la waay yéen Sénégalais quatre-vingt-quinze pour cent des musulmans bu leen bañ jigéen di mur seen kanam diine la boo xam ne nii mi ngi jóge ci yàlla ak yonent yàlla bi nañu góor góorgóorluwaat yéen jigéen ñi ngeen téye seen muuraay googee na ngeen ci sax bu leen ci kenn génne képp koo xam ne mu ngi leen ci critique di leen ci saboté am na ñaari rendez-vous nekk seen kanam benn rendez-vous bi mooy morgue ba bés bu ngeen dajee ci morgue bi da ngeen xam kan moo waroon a muuru ndax kan moo nekkoon ci dëgg yéen ñaar te doomu aadama bi bala ñu ko jébbal boroomam daañ ko muur ba mu daj kapp ñu lëmas ko waaye bis bu ngeen dajee seen boroom it sunu borom nee na day saay saay si day nekkoon nañ di reegaa yu baax ya inna lazina ajramu kaanu min allazina amanu yadxakuun dañ leen daan ree buñ leen rombee di kobasante naan inna haula ila daaluun xoolal gaa yu réer gaa yu sànq yi comme ni ñuy joxeñe tey jigéen ñi nga xam ne dañuy mur seeni kanam waaye mu ñu leen sunu borom nee na fal yowma alladina amanu min alkuffari yadxakuun amma tey nag julit ñu baax ña nangu woon ndigal yàlla ñi ngi ci kaw àjjana di reetaan yéeféer ya nga xam ne ñoo leen doon saboté mbokk julit ngir bañ yow julit nga bokk ci ñooñu nga xam ne dañ leen di rey ëllëg yowmal qiyam ñu nekk sawara looloo tax xutba bi ñu xutba ko jëmele ko ci yow na ngeen delluwaat xam ne muuraay lu yàlla subhanahu wa taala santaane la góor ak jigéen taxaw ci ñu taxaw ci ci njaboot gi su ngeen mënee muur seeni kanam fa lillahi alhamdu su ngeen ko muuru lit ñaanal leen ña koy def ndax ooma yi nekk nañ benn benn yi nga xame ni nii ñooy taxawal ndigalu yàlla ci kaw suuf yal na yàlla delloo ñu suñu diina delloo ba gën a rafet yal na yàlla musul ñu ci lépp loo xam ne day jur fitna yal boole waat boolewaat suñuy xol ñun ñépp ni ñu yàlla boole suñu réew yal nañu boole ci dëgg yal nañu yàlla musal ci bépp fitna bu ñuy jóge bitim réew yal nañu yàlla musal ci bépp xalaat bu yàq suñu diine yàlla yàlla rafetal suñu mucc defal ñu ñun ñëpp àjjana suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain